président ci Sall reporté na élection yi te loolu sénégalais yu bëri ànduñu si. élection présidentielle yi mu aj motax ba biir Sénégal gisat nañu ci ay manifestation té différence bi ci manifestation bi ak yi fi jotoon xew moy que ni nekatul jeunesse sénégalaise bi rek mo nek di génn gis nañu ci ay pa ay maire ak ay xalé li nek di xew nii daf ñuy fatali li fi xewon 2011 ak wa M23 ak manifestation yu metti yu amon ba mu am ñu ci ñakoon seen bakkan ak ñu ci jëlé ay gañu gañu 2021 tamit amon na ay manifestation yu metti yu fa amon ba au moins quatorze personnes ñàkk nañu ci seen bakkan juin deux mille vingt trois tamit amoon na ay manifestations yu ci amoon te au moins vingt trois personnes ñoo ci ñàkk seen bakkan te ñetti tuuti tànk bokkoon nañu ci ak boole kook au moins trois cent quatre vingt dix personnes yu ci jëlee ay gaañu gaañu jamono jii nag li tax sénégalais yi di manifester mooy reportu élection yi. te report bi à quelques heures au début campagne présidentielle bi lañ ñu ko annoncé candidat yi nak dañ def ay effort yu metti pour mën juste bokk te population bi élection yi rek lañ doon xaar waaye report bi nga xamantene président annoncé na ko dafa créé waat ay quelques tensions ci yenn zones yi ci biir Sénégal boole kook ñu gisagum ay candidats yu bari di nakarlu li nga xamantene ne moom mooy décision bi te ñun en tant que sénégalais bu ñu sañoon élection yi am si jàmm comme ni mu amee woon en 2012 jàmm delluwaat biir Sénégal